sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi saanin ila yowmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf sëriñ tubaa ski sëriñ tubaa ciy sëriñ tubaa boroom tubaa moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki sénégal yépp noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di wax itam aoudu bi kalimatillahi tamati min charri ma képp ku war a jàkkaarloo nun di déglu lii wala di ko seetaan noo ngi lay baalu àq buñ ko xamee buñ la ko xamul noo lay jéggalu di la baalu àq képp ko xam ne amel amel nga ko noo la koy baal di ñaan yàlla ci sama làmmiñ di ci fasaale ñépp yal na nu yàlla boole jëggal li dox suñu digganteek moom kenn ku nekk di ko sant ci xéw li nga xam ne bis bu nekk sant ko rek ko ranoon cee sax bañ a defar ci dara waaye di ko gën a sant ci boole gi nu booleeg Serigne Touba di ko ñaan itam ci ndigalam Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekkal sëriñ Touba di jëwriñu lislaam yàlla tawféexal ko may ko tal ak fekke ak tawféex ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi ci tool bu lislaam bi mu liggéey ko ba am ci ngërëmu sëriñ bi nu ànd kook moom ginnaaw loolu nu nuyuwaat leen tey fii ci ajuma ji ci Touba Mbacké almahrusa niñ ko baaxoo yéen ajuma ju nekk bu 9h jotee ci guddi muy 21h jataay bii nuy séq ak yéen muy Saxum Touba te jamono yii nu toll ci di waxtaane nekk gi sëriñ bi nekkoon njaareem biñ ko fa yóbboo résidence surveillée bi mu jógee ci yenn Jolof ñëw njaareem fukki at ak juróom 1912 ba 1927 tey jii nag di juróom-ñetteelu émission bi muy juróom-ñetteelu jataay bi ban tàmbalee nekkuk sëriñ bi njaareem ba léegi wax nañ leen dafa jotoon am ci ay kiimaan wax leen kër ga na mu demee woon wax leen mbas ma fi xewoon <coughs> wax leen itam lépp lu aju ci ba sëriñ bi dugg njaarim léegi nag danoo dugg ci ñaareelu poñ bi nga xam ni ñetteelu poñ waxoon na leen ko mooy jumaa yi njaarim tey moom lañu war a tàmbalee waxtaane kañ la naka la nuñ ko diglee nuñ ko tabaxe ñaata lañ ci def ak yeneen ak yeneen muy jumaay njariñ kon tey jii loolu lañ fas yéene dikk bu jàllee nag dinañ digg ci fi réew mi tollu ci lu tënku ci taxaw seetlu bu gàtt incha allahu rabbi di fàttali rek ni talaata jii nu ñëw muy mardi mooy beneen jataay bi may toog ak yéen ci jataayu murit saadix loolu talaata ju nekk lay am vingt heures trente muy juróom-ñetti waxtu ci guddi bu tegalee fanweeri minute kon loolu ñu bàyyi ko xel ginnaaw bu nu wëlbatikoo nag bala noo sori sant bokk yépp bokki taal bi yépp kilifa yi nekk Tuubaa yépp ak yi nekkul Tuubaa yépp yittewoo gi ak safoo gi ak bàyyi xel ak rafetlu gi ñuy rafetlu taxawaay bii ak yi noo ngi ciy sant Serigne bu baax a baax a baax di nuyu nag mboolem soppee Saxum Touba yépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñi ñëw ak ñi ñëwagul ñépp ñu ne bitim réew ak nit ci biir réew mi góor ñi ak jigéen ñi bàyyuñ kenn fu fi nekk rek noo ngi lay nuyu di la ñaanal di la bàyyi xel di sàkku ñépp ñaan kon mbokk yi nu ñëw nag ci jumaay njaareem man nag damay faral di wax Lax tuuba Njaareem Dakar Lax Touba Njaareem Dakar loolu dama ko xalaat rek ci ñetti dëkk yooyu yëpp ni ko sëriñ bi marqué ci néegub yàlla jumaa yi Touba jumaa yi Njaareem jumaa yi Ndakaaru kon nag ñoo ngi ci jumaa yi Njaareem dafa baax itam nuy faral di fàttaliku sëriñ bi di ko waxtaanee bu baax a baax a baax gis nga lii rek bu ñu ko dee dund rek di ci dund rek <clears throat> li seytaane bëgg di ko am ndax dafa noo bëgg a divertir ak jamono ak ya cay ba tax nuy dof dof ba xaw a sori bi walla iyaazu billaah te loolu ku ci góorgóorlu loolu Sëriñ Abdu Xaadir waxoon rek jamono ji kenn ku rek bu la dara këf loo jëmoon ci sëñ bi rek loo ko ñooxu woon rek gën ko ko ñooxu waat ndax ñooxu sëriñ bi mooy ñooxu yonent bi mooy ñooxu yàlla ndax sëñ bi léppam yàlla yonent bi la kon mbokk yi boo demee ci irwa un nadim wala yeneen téere yi sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana bind liñ leen di wax nga fekk ko ci di ñaanal sëñ Modou Xëri Jaxate baax yàlla yokki leeram ci taxawaay ba nga xam ni mooy lii nuy def rek te mu doon ko def ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa teg loxo ci ak njabootam <coughs> euh, boo demee ci irwaaw na di nee naa wala sëñ Mouhamad Lam Diop téere yi di nga ci fekk la fi fi fa fi daxwati yowmi al ithnain alsaabi wal ashrin min jumaada thaniya aama walsasin al muwaafiq li ahda min alchahri althalith alfa miladiya loolu ab tàmbali rek ngeen xam ni kon foofu lu wax ji tàmbalee mooy lan ci yor-yorub altine walla subak altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci rakkaat ji gàmmu ci atum wal sa sin mu tolloo ak 11 mars 1918 ci lañ teg xeeru jumaa yi njareem boo bëggee mu gën a leeraat ci yow. bi ñu jëlee sëriñ bi ceen Jolof ba indi ko njaareem résidence surveillée juróom-benni at la fa def ba juróom-benni at ya matee ci lañ teg xeeru jumaayi njaareem moo tax mën la fa fii dahwati yowm al ithnain alsabi wal ashrin min jumaada thaniya aama walsasin al muwaafiq li min alchahr althalith alf tisumiya bis bii lañ teg xeeru jumaayi njaareem foofu sax dama koy bàyyi seen ndam Gueye rek ndax bu ma bëggee di wax di jàngat émission bi day gudd waaye jot naa ne képp ku ci dem bay déglu jàngati si Dame Gueye mu ngi ni gis noonu daanaka ëpp na programme sax ëpp na émission loolu nag dama leen bàyyi ngeen xool seen bopp rek dem déglu leen jàngati rek waaw waaye li ma bëggoon wax foofu tuuti mooy 1918 ku ko dégg rek am na lu mu la war a lu mu la war xeex bu jeexagul daanaka wala buy soog a jeex tàng jër économie bi daanu lépp adduna jaxasoo dara dara dara nekkul ci sëriñ bi ak li li topp ci ginnaawam lépp lu dul néegub yàlla mën nañ sax xaar duñu reconstituer économie bi dundalaat koom-koom bi waaye ci 1918 nga xam ne kenn ku ne yaa ngi naan fu ma jëm ay réew mi àdduna sukki na sama koom-koom léegi foofu jamono jooju sëñ bi moom lan la nekkul ci moom lu dul yàlla suñu lañ taxawal xeer wi néegum njariñ euh, jumaay njariñ kon loolu leer na nañ naka lañ ko taxawle bi ñu tax xeer wi am na nag ci ay document yu bind ni 1916 la waaye loolu moom amul li wér mooy sëñ Modou Khary nee na sëñ Mbàkke Buso sëñ Abibu Mbàkke mu baax ba borom xam-xam ba sëriñ Mbàkke Jaxate kenn ku ci nekk toog naa yow nga firndeel ko ñoom ñëpp juboo nañ ci ni le 11 mars 1918 lañ teg xeer wi juróom-benni at ginnaaw bu sëñ bi ñëwee njariñ kon loolu leer na naka la demee fukki fan ak ñaar nag ci weeru korité maanaam ma ñu waree ba am fukki fan ak ñaar ca jamono yooyee ci la sëriñ bi génn ci bayo bi baye bi baye mooy bayal rek bayalu njaareem boobu fi jumaa ji nekk ci la sëriñ bi génn ci kër gi ñëw ci bayal bi bi mu ñëwee ci bayal bi bayal bi ab tuukur la woon tuukur dañ fa daan bay ñambi puloox maam Cheikh Rafal moo ko fa daan bay foofu jumaa ji nekk maam Cheikh Rafal moo ko defoon ab tuukur di fa bay ñambi sëriñ bi génn ci kër gi ñëw bi mu ñëwee dat ni natt natt natt natt ab carré carré mooy ñeenti koñ koñ fii koñ fee koñ fii ko fii ab carré la nag carré bu ne mu gas lu bant ñu samp ko fa muy ab carré boo xam ne fii bant fee bant fee bant fee bant ñu bàyyi ko noonu waaye lu jiitu loolu da leen ni puloox bii muy ñàmbi ji kenn ku nekk na ñëw ñu gas ko jële ko fi te lu ci waay gas mën nga koo jël maanaam lu waay gas yaa moom lu waay gas rek ba noppi yaa ko jël ñu ànd ci ak yar ak teggin kenn ku ne ñu gas ko bu jël ko bañ ko gasee ba noppi rek bañ defee loolu ba noppi rek ci la sëriñ bi natt carré boobu teg fa ñeenti bant nag dellu ci kër ga ba ci altine ja muy dat bi ma leen wax ca altine ja 11 mars 1918 mu ñëwaat bi mu ñëwaat ci kër gi astafurlah bi mu ñëwaat ci bayal bi fekk gas nañ fondement yi ba noppi mu war a teg si xeer bi ne ni sëñ Maxtaar Binteloo mbooloo mu bari ñoo nekkoon ci barab di nekk sëñ bi waaye bi mu ñëwee sëriñ maxtar Binteloo la mag ñi wax ni moom la àndal dugg ci pax ma maanaam fi ñu war a teg xeer wi ba mu duggee ca pax ma sëriñ maxtar Binteloo jël turéel ba jox ko mu jël ko ca loxoom bu tedd ba tibb ca ciment ba fekk def ca suuf ñu yëkkati ko mu yëkkal ko xeer woo mu teg ko ca waaye ba mu ko ci daan teg dafa wax ni wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albeyti wa ismail rabbana taqabal minna innaka anta samiu alalim daal ni bismillahi rahmaani rahim tefli ko ca teg lii la Sëriñ wax ñu teg xeer wa kon nii la jumaa yi njaarim soso Sëriñ Tuubaa moo tax xeroo ci bis bii ma leen wax ci waxtu yu ma leen wax léegi nag sëriñ bi delloo na moom teg na xeeru ba noppi liggéey bi war a tàmbali liggéey bi nu mu demee ak ci kan la jaar ak ci ñan la jaar liggéey bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci loxol Cheikh yi Diène la nekk maam Issa liggéey bi yëpp ci loxol Cheikh Issa Diène lañ ko tegoon matériel baag la cay dem ak lépp ci loxoom la newoon waaye nag kiimaan dafa am ci kiimaan da cee feeñ ci jumaay njariñ mag ñu ne nañ kiimaan da cee feeñ ndax jumaa ji amul plan jumaa jii ngeen di romb nii mu rafet nii amul plan dessiné architecte xool fii nii nii lii la war a déedéet amul tubaab bi dañoo jaaxle woon lool ndax ñàkk gi mu ñàkk plan te sëñ bi jox na ndigal ngir ñu tabax ko tubaab bi ko doon tabax mi ngi tudd Bukura Bukura la tudd moo yore woon liggéey bi léegi nag biñ jaaxle ci ñàkk gi plan sëriñ bi ne leen saa yu ngeen demee ba. mënatu leen a dem ba gag dem leen ci Isa lu mu leen wax na ngeen ko def bu ngeen ko defee rek liggéey bi yépp dina jub waaw dem leen ci Isa tubaab bi loolu la ko wax plan amul kenn dessiné wul kenn deful mu ne ko saa yu ngeen demee di tabax ba caa ngeen amul fu ngeen di jar dem leen ci sëñ Isa Dieng su ngeen demee lu mu leen wax nag na ko def di di dina dina jub Boukrab moo doon tubaab bi doon tabax jumaa ji farajaw moo doon chef mason ba ku ñuy wax farajaw farajaw moom nag xaw ma dafa faatu wala dafa nekkatul woon waaye ginnaaw bi nag ci mujj gi nekkul chef mason chef mason bu mujj bi nga xam ne moo ko jeexal mooy ku ñuy wax Mouhamadou Diakhaté moo mujj nekk chef maçon bi kon kan moo doon plan bi plan bi moo doon sëñ Issa sëñ Issa Diène moo doon plan jumaa Njaaréem nu mu ko nekkee euh, sëriñ bi mag ñi nee nañu da leen wax leen su ngeen demee ba xamatu fu ngeen di jaar yéen tubaab bi dem leen ci issa bu ko defee dañuy wooy sëñ issa bu tubaab bi demee ba xamatul fu jaar ci tabax bi day wooy sañ isaa bu ñëwee ni ko jaaral nii jaaral nii defal nii defal nii tubaab ba def ko lépp jub kon daa mel ni ci dégg-dégg ni ñëpp di nga dégg muy sëriñ bi daa jël sëriñ isaa soppi ko plan jël plan bi def ko ci boppam sëñ isaa sëñ isaa nag ñëpp xam nañu booba du jàngatu tubaab <laughs> alxuraan la daan jàng moom la daan jàngale ak xam-xam kon kooku xamul luy luy luy plan ci ni ko tubaab bi defee waaye sëriñ bi sol na ko moom moo moo mujj di plan moom ndax mooy mooy guidé bi ci li muy tabax lépp te yoruñu benn luñ dessiné wala luñ architecte defar naa nii la jaar jaaraf jaar def mag nee nañ sëriñ bi mooy seet lu ko soob mu def ko ci ku ko soob mag ñee nee nañ ci jamono sëriñ bi su la masaa yëkkatiloo dara gaal ni la demal yëkkati gaal gee maanaam valise daal lu mu diis diis diis diis soo amul sikki sàkk werante woo rek booy dem di ko yenu waaye bu la demee ne dama yëkkatil ma gaal dafa ma ne lii diis na sa xel rek boo demee du jóg waaye nee lu mbir rëy rëy su la ko defloo ba xel mënut a xalaat yow yow mi koy defloo yow su fekkee ne yow nekkoo fa déglu kenn wala werante woo sa xel soo demee di ko def su la yëkkatiloo mbir lu mu diis diis gaal demal yëkkatil ma gaal ngeen indil ma ko. danaa ci taxaw foofu entre parenthèse ngeen baal ma bokkul ci waxtaan wi waaye dama koy fàttali bu leen fàttali ni yi bii kër gi lakkee ci daaru mën naan fii ci Touba te sëñ bi nekk njaarim juróom-ñaari gaal yooyee keroog ba mu koy yónnee jox leen ay mbàjj ni leen bu bu mu laal suuf la gaal yay diis diis gànnaar daaru mën naan ba gànnaar mu leen bu ngeen sonnee ngeen teg ko fa suuf ñoom ñoo ñuy àndoon di fan ak ñett ñoo yenu gaal yi ak diisaay ba yóbbu ko waaye loolu sax am na yeneen yu ko gën a xóot fop ci lu sëñ bi def loo nit loo xam dañ naan lii moom dëgg dëgg xel mënu ko waaye kam koy def loo rek ci la mbir ma aju am na ñoo xam bu leen sëñ bi noonu leen xaral leen miir bi léegi ñu xar miir bi waaye am na boo xam ñoo xam bu leen ko waxoon seen xel di déng-déng ñooñu nag moom du sotti ci ñoom loolu mag ñi wax nañ ko léegi nag sëriñ Isaa kon moo yore woon liggéey bi yëpp ak kan sëriñ moor Absalo sëriñ ci mag njaarim yi la bon moom moo yoroon ñi nga xam ni cheikh si sëriñ si dañ daan yebal ay taal bi ñu ñëw di liggéey si njaareem ku ñëw ci loxol sëñ moo Absa loolu la lay teg waaw maanaam personnel bii ñëw jógee ci sëriñ jóge ci taalibe yi ci taalibe yi sëriñ bi ci sëriñ si ku ñëw ñu joxale nga war a liggéey ci sëñ Mor Absa loolu lañ lay teg moo lay yor waaw ci lañ la yebal ak kan sëriñ Ahmadou Mandumbe Mbàkke sëñ Ahmadou Mandumbe sëñ Ahmadou Ndumbe sëñ Ahmadou Ndumbe Mbacke moo doon nag kilifa jataay bi yëpp sëñ Isaac sëñ Mor ab saak ñëpp sëñ Ahmadou Ndumbe moo doon seen kilifa maanaam moom mooy dox diggante sëriñ bi ak liggéey bi mooy dem ci sëriñ bi mooy jóge ci sëriñ bi ci liy war a dox lépp lu ñuy war a soxla yëpp waaye sëñ sëñ Isaa moom ci jëmmi taxawu ko moom matériel bi li ci aj lépp ci moom loxo waaye sëñ sëñ ma Ndumbe nag moo doon kilifa liggéey bi moom maanaam ku ci nekk dañ la joxoon benn rôle moo doon kilifa jataay ba intermédiaire bi sëñ Mandoumbe sëñ Ahmadou Mandoumbe foofu itam dañ fi taxaw tuuti ndaxte sëriñ Balla Fally sëriñ Balla Fally mu baax ma moom moo doon trésorier général moom lañ doon jox lépp lu ñu dajale ci xaalis bi moo doon trésorier général sëñ Balla Fally Dieng waaye dafa amoon sëriñ bi bi ñu ko waxee ba noppi mag ñi ñoo sàkk jumaa ji ñoo xool ni barab bi war naa am juma bi sëñ bi daan tàbbali juma ji diggu bi ñoo ñëw ci moom wax ko ko sàkku juma am ci barab bi ginnaaw juróom-benn at bu ñu fa nekkee mun leen jumaa de daa diis lool jumaa dafa diis dafa bokkutug lu bari su fekkee ni man ngeen ko def de te du ngeen laaj du ngeen sonal kenn kenn ci laaj loolu de bu boobaa waaye lu dul loolu de du mën a nekk. su ngeen ko mënee def nag te du sonal kenn ci dara ndax jumaa dafa diis waaw mu ngi ko gisee léegi rek nga xam dañuy dañu yelwaanal jumaa yi yëpp sëñ bi di leen du noonu sëñ moom nanguwul loolu mag ñu ne ko mbakki mën nañ ko su amee ndigal rek danañ ko def ni nga ko bëggee te loolu du ci am mu ne bu boobaa lu waay man rek mu def ko mag ñi nangu mu jox leen digal ba mu leen joxee ndigal it da leen ni sëñ Balla Fally Dieng dañ ko jox ab carnet sëñ mën lu ma Mbàkke ñu jox ko carnet suba ba ngoon lu waay indi ñoo koy bind dërëm fistine tànk lu waay indi ñoo koy bind sëñ bi ne leen bu ngeen bu ñu ko bindee ba ngoon kenn ku ne lu mu fa indi bu ñu ko bindee ngeen indi ko won ma ko maanaam li ñu bind daal bu dee ñaari fan la wala ñett dañ ko indi won ko ko sëñ Balla Fall Dieng moo yor lépp moom kon ñaari carnet am carnet bi sëñ Balla Fall Dieng mboolem ko santul Mbàkke rek ci taalibe yi sëñ Balla Fall Dieng mooy bind li nga indi ku santul Mbàkke ñi sant Mbàkke nag sëñ du Mbandumbe Mbàkke mooy bind li ñu indi sëñ Balla Fall nag moom su xëyee suba ba ñu toog du noppalu ba ngoon bind rek lay liggéey ndax nit ñaa ngi indi rek mooy mooy bind li taalibe indi sëñ Mbandumbe nag moom dana fa yàgg lool te du bind moom mooy bind ñi sant Mbàkke li ñu indi. dafay yàgg lool bu ngoonee tuuti lay bind léegi nag moom sëñ Mandumbe moo wax ci boppam booba nag li ko waral mooy euh, bokki dafa wax ni bokki sëriñ bi da am ñoo xam ne xam nañ sëriñ bi bu baax a baax a baax lu mu digle dañuy jàppee seen bopp di ab taalibe jéemuñoo xool mbokk la dara ni ko taalibe yi dafay ci anam yépp am ñoo xam nag xamaguñ sëñ bi dëgg dëgg dëgg looloo tax carnet bi sëñ mu ndumbe la ca nekk bariwul waaye nag am nañu ko xamoon moom ñoo xam ne xamoon nañ sëriñ bi te ay mbokk lañ woon waaye dañoo jàppee woon sëñ seen bopp ab taal bi ni Cheikh Mouhamadul Fadil defoon borom rajab gii loolu nag moo tax sëñ sëñ mu ndumbe bi bi carnet bi bariwul nag bu toogee ba ngoon du bind lu bari mu xam naa dañoo jàppe sëriñ bi mbokk moo tax li sëñ bii digle dugaluñ seen loxo ni ñu ci war a dugal seen loxo man man Ndoumbé Mbacke nag man sëñ bi nag bis ni ki tey sant Tuma Mbacke foofa na laa sant foofa na man du ma bokkum sëriñ bi foofa sant daal di santale boppam foofa na yemu ca de jël carnet ba mu yor dem ci kàdd gu nekk ci njaarim kàdd gi ñëpp xam nañ ko kàdd gi ne woon foofa mag ña xam nañ ko dem ci kàdd goo xam ñu ko doon wax kàdd ngàllo kaddu mbaa yàlla wala kaddu ngàllu mooy kaddu jaami Serigne Touba yi ñoom noonu la ñu ko daan tudde maanaam ab jaamam lu bëgg a nekk kaddu gi dañ doon wax kaddu ngàllu ngàllu mooy jaam wala kaddu jaami Serigne Touba yi fa lañ daan julee néew yi ci njariñ sëñ ma nubee fa lay toog yor fab karneem léegi ni man léegi santatu ma Mbàkke foofa na laa sant maa ngi fii ci kaddu jaami Serigne Touba yi jaamu sëñ Touba la sëñ ma nubee Mbàkke noonu la defoon kon loolu it xew na ci jumaa ji ginnaaw loolu nag sëriñ ma nubee bi mu ko defee sëñ Balla Fally Dieng di bind sëñ Manu Wéri bind moom léegi nee na jaamu sëriñ Tuubaa la ñëw nag xam kenn ku ci nekk ngeen bàllu kenn ku ci nekk li mu doon joxe ci biir jumaa ji ki ñu wax ni moo ci ëpp lu mu joxe mooy Serigne Balla Fally Dieng ngeen baal ma Serigne Issa Dieng Serigne Issa Dieng sëñ Issa Dieng moo ëpp lu mu joxe ci jumaa ji ca mag ñi nekkoon foofa ki ci topp mooy sëñ Ahmadou Ndoumbe Ahmadou Ndoumbe sëñ Ahmadou Ndoumbe Mbàkke moo ci topp ci ñi ëpp lu joxe ci jumaa ji ki ci topp mooy Serigne Modou Diop Serigne Modou Massamba moo ci ëppale waat ki ci topp mooy sëriñ Alioune Touré ki ci topp mooy Serigne Mor Absalo ki mooy sëriñ Balla Fall Dieng ki ci mooy Serigne Mbaye Sarr lii nag ab karne la boo xam ne sëñ Modou Xëri nee na ba léegi carnet baa ngi fi nii lañ ko bind te sëñ Balla Fall Dieng mi nga xam moo yoroon carnet bi ci moom la copier lii nga xam moom laa di wax yéen karne baa ngi fi ba léegi kon sëriñ bay Sarr nee nañ daan na indi dërëm par bis ñenn ñi ni ñaari dërëm ñenn ñi ni ñetti dërëm. waaye li gën a siiw mooy ñetti dërëm yi loolee sax da ko daan def ci jumaa ji waaye bi mu jeexee ñetti dërëm yi dëkkul ñiy jàng kaamil ci jumaa yi njaarim xaalis boobee lay jël defal leen ko ndëkki indi leen ko kafe ba jamono yii wax ak yéen waa Sëñ Mbay Sarr ñi ngi dundal aada jooju ñu doon def te doon ko def ci jumaa ji ñi ngi koy defal ñay jàng kaamil ci njaarim ba jamono jii may wax yéen tey jii ci ajuma ji bis bu ne nee la ñu ngi ko def ba léegi waxtu yu nag ñuy def loolu kafe di ñu bàyyi ko xel ginnaaw loolu mu des nag xam naa kenn ku ne mi naan baabul muridin am làmp baabul muridin xam naa loolu mu xel yu bari ñu ngi naan waaw dund dégg gunt ndax boobu mi ngi dund boobu ma nga Cees bi sëñ bii digle jumaa ji ak bi ñuy woote maam Cheikh Fall boobu ma nga Cees ma Madina Fall moom nu mu ci dikkee moom maam Cheikh Ibrahima lii ma leen di wax ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Thiam mboolem kuy Baay Fall xam nga ko wala murit boo xam ne rek yaa ngi dund murit gi sëñ Ibrahima Thiam 1882 la juddu 1890 lañ ko jox maam Cheikh Fall 1882 la juddu. la gane àdduna 1890 lañ ko jox maam Rasuul lañ ko jëbal boobu juróom-ñetti at la am tàggoowul ak maam Cheikh Rafal tàggoowul ak maam Cheikh Rafal moom sëñ Ibrahima Thiam ba 1930 bi Cheikh Ibrahima ñibbi ñibbi seetu lañ tàggoo moom sëñ Ibrahima Thiam moomu juróom-ñetti at la nekk ñu jox ko ko ba ni maam Cheikh Rafal ñibbi see Touba 1930 tàggoowul ak moom loolu moom ñuy gëstu ci mbirum Baye Fall ak ñëpp xam nañ loolu moom boo xam nañ ko waaw ñu ngi naan at mi maam Cheikh Rafal wàcceeg. yooyu yëpp lañ ko jébbal waaye li wér daal mooy 1890 lañ ko jébbal moom tàggoowul ak moom ba 1930 kon loolu bay ma tax ba bàyyi xel la léegi nag moom sëñ Ibrahima Thiam moom moo wax ni dibéer dibéer mooy dimanche ñaar fukki fan 27 avril 1980 la wax wax jii ma leen di wax sëñ Mourou Xëyri nee na ci la dem fekk ku dina faal ci njaarim mu fekk ko ca njaareem këram ca njaareem madinatu fa la ko fekk moom sëñ Mourou Khayri fekk fa sëñ Ibrahima Thiam mu di ko laaj ci maam Cheikh lu bari ba nettaliwaale ko lii mu di ko laajaale ci mbiru jërëm le 27 avril 1980 ci la sëñ Ibrahima Thiam wax lii ci njaareem ci Madina Fall lan la wax ci li ci maam Cheikh Fall de ci jumaa ji nee na bi maam Cheikh Fall déggee ndigal li te nekk Thiès dafa daal di woote ni nañ ko indil duubal booli duubal booli. booli ko ne xam na ko mooy ba bool bu mag double booli nag mooy double booli ñëpp xam nañ ko double booli daal di nañ ko ko feesalal nañ ko ko feesalal nañ ko ko feesalal maam Serap Fall moo wax loolu ci Thiès dërëm fistin tànk lu waaye am si Ibrahima Thiam nee na ñu di ca def di ca def ba boo ci tegee benn day ko daanu maanaam fees na ba léegi day barastiku daanu nee na maam Serap woo woote ñëw mu leen. kan moo ma mën a yóbbul lii ku ko attan man ma ko yóbbul ci sama sang ba njarim la ngeen jégal ba dafa wut gaal dama dama rëcc dafa wut gaal sotti ci dugub bële bu kaste ko daal ni ku attan gaal gi ku ma ko mën a yóbbul njarim ci sama sang ba ñu jëm ci jubaa ji nee na ñëpp kenn ku ne di xatraayu ñenn ñi yëkkati bu mu ku ko mën a yëkkate ko sa bopp yen ko sa bopp rek bu la ko kenn yen boo ko mën yenn sa bopp yaa koy yóbbu ku ñëw dem ku ñëw dem ba ku ñuy wax Moussa Niang moo ñëw ni ko jëkk yëkkat teg ci boppam tegaat fi suuf yëkkat tegaat ci boppam mu ne ko mën nga ko yóbbu Moussa Niang maam Serafal woo taalibeem bu wax ma Samba njaay ma Samba njaay jox ko ak fital ak fas ni ko bu yenoo gaal bi ngeen di dem njaareem toppal ci ginnaawam lépp lu ko jege rek fitalal loo gis mu jege musaa Niang ak gaal gi rek fitalal Moussa ñoom yenu gaal bi yenu gaal bi yenu gaal bi ba egsi njaareem ak Moussa mag ñi nee nañ bi mu egsee njaareem bi mu yenni koo gaal bi deru bopp dafa takk ci gaal bi maanaam bopp bi der wi dafa taq ci gaal bi ndax di saay ba waaw moom Moussa moom kon loolu mooy taxawaayu maam Cheikh Fall ci li nga xamante ne bii moo jëm ci wàll kooku xam naa nag dinañ dikk tuuti rek bu nu dellu see waaw kon ginnaaw loolu euh, carnet bi nga xamante ni moom la sëñ Modou xëy wax ni ci lañ bindoon li dem ci jumaa ji lépp sëñ Abdou Dieng Balla Fally sëñ Abdou Dieng Balla Fare moom moo ko abaloon mu copier ko xool ci nekk xaalis bi ñu defaree jumaa njaare mi ngi toll ci huit cent soixante seize mille sept cent quatre vingt neuf huit cent soixante seize mille sept cent quatre vingt neuf maanaam ab million bu manqué daal ñëpp xam nañ xaalis moom xam naa ne du ñu ñàkk ñàkk xam na xaalis moom huit cent soixante seize mille téeméeri junni ak juróom-benn ak juróom-ñaar fukk nangam ba egg daal mille sept cent quatre ci ay dërëm ci jamono jooju nag laa wax rek ci jamono jooju loolu nag sëñ Modou nee na bi mu ko bëggee convertir xam nu mu tollu nii la def dërëm yooyu du dërëmi ngordu de dërëmi ngordu yi xaalis la daan doon nee na dërëm yooyu aw kayitu xonq la daan doon nee ku ñuy wax sëñ Abdou Karim Dieng di doomi sëñ Mballa Fally xamal ne ko ni ko si karam Karim Dieng sëtam xamal na ko ni ko man mas naa cee foro ab dërëm cee dërëm yooyu nee na dërëm yooyu bi mu ko foree bi mu demee wecc ko ko maanaam bi mu foree dërëm nguur wecc ko ko juróom-ñetti dërëm lañ ko ci jox waaw dërëm boobu bi mu ko foree wecc ko ko juróom-ñetti dërëm yi ngor lañ ko ci jox muy nag moom bi mu ko bëggee xam dafa jël jamono yooyu dërëmu ngor du ñaata la bi mu koy xayma moom muy juróomi téeméer. mu diviser ko ci trois cent douze virgule cinquante huit multiplier ko ci huit cent soixante mille sept cent quatre mu jox ko deux cent soixante treize millions neuf cent quatre mille cinq cent soixante deux cib tënk daal valeur u jumaa yi Njaaréem mooy ñaar téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak ñett yu tegal ci jamono yi ñu wax ak yéen wala jamono yi sëñ mu di wax loolu. bi mu koy gëstu war naa mat 1980 ba léegi lool loolu mbir mi mii amoon kon 1980 jàppal ni boo doon xool bu ñu la doon jëmale njëriñ loolu ne deux deux cent soixante treize millions neuf mille cinq cent soixante ginnaaw bu mu convertir yi yooyu seet jamono ji laaj ñi am xaalis mu tollale ko ñoom ba gëstu ko noonu la waaw muy ñaar téeméeri millions ñett téeméeri millions yu teg tuuti ca jamono yooyu ko xool loolu valeur u xaalis boobu boo ko dee xool ci jamono 1980 kon loolu lay tollool loolu lan bëggoon bokk yi nu indi ko tey ci jumaa njaareem incha allahu rabbi lii ajuma bi ñëw ci la ñuy indi nag li des ci jumaa ji ak liggéey bi soog a wéyal nag nekku seriñ bi njaareem la ca toppaat topp ca la ca toppaat topp ci waxoon naa leen itam képp koo xam ni da nga noo yittewoo ci lu jëm ci liggéeyu sàq mi wala dara la ci yitteel da ngay woote ci 77 877 854 12 54 77 854 12 54 kon mbokk yi laaj itam loolu noon naa du ma ci wax waaye mun ma ko bañ ci fàttali ndax da ngay dajeeg nit léeg-léeg ci jumaa ji wala feneen ci fu mu doon ah sëñ bi da ngaa bàyyi mbir ma gëj nañ koo dégg nangam na fekk Saxum Touba moom am na site internet mi ngi dem YouTube bi naka jekk moom bañ ko taxaw la télévision ba léegi musta taxaw kon léegi li ci am mooy. xanaa bokki taalibe yi ko xamul kenn ku ko mën a laa labiré ba kub taalibe partagé ko moom wala nga xamal ko lien bi muy Saxum Touba l'officiel ak Saxum Touba point net ni ñu koy bindee yomb na S A X U M Touba naa loolu yaakaar dana ñi koy laaj di ko fàttali mënuñu koo bañ a fàttali ndax dañ koy sàkku kon loolu rek ñu ñu ñu xamal leen ko doon kon bokk yi tey ajuma ji dootuma leen wax lan la xam ngeen ko mooy lan mooy. nekkuk sëriñ bi njaareem mooy sëriñ Touba biñ ko jëlee Mauritanie indi ko Thiène Jolof résidence surveillée ba 1912 ñu jëlee ko fa indi ko njaareem muy Jurbel ba 1927 ni mu làqoo dem ci boromam 1927 12 ba 27 kon lépp lu fa sëriñ ba nekkee woon ak mag ña nga xam ni foofu dafa tàmbali woon projet de société fala la lépp fala nase lépp soo ko dem bàyyi Cheikh Mouhamadul Moustapha ak Cheikh Mouhamadul Fadil projet de société bi njaareem googu la lépp laloo am base yu dëgër ba tey jii mu egsi fi mu egsi te loolu sëriñ bi ku bindal boppam ndax raamu ma siri ila Jurbel la daa lasasin law aayanoo sirrama fi sayri ma raamu kon ba sëriñ bi dem njaareem sunu boroom xamal na ko ni ko foofa nag la lépp di tàmbalee jolli lépp fa la lay fekk fa la ñuy tërale projet bi muy dem ba keroog yowmal xiyaam kon njaareem googu képp ku di murit waaye sax ku di jullit wala ku Sénégal rek war na laa yitteel nekk ga fa sëriñ bi nekkoon ci résidence surveillée noo ngi nag tey tey ci huitième émission bi juróom-ñetteelu émission bi nga xam ne sëriñ Tuubaa ba mu nekkee njaareem li jàll lépp wax nañ ko. duma ci dellusi képp koo xam ni raw na la te nga bëgg koo xam demal ci Saxum Touba l'officiel ci YouTube bi wala Saxum Touba point net émission yi jàll yépp di nga ko fa fekk ba mën noo dab incha allah kon mbokk yi noo ngi toll woon ci jumaa yi njaareem ajjuma ji weesu jumaa yi njaareem euh, bokk na ci projet yi ma leen wax projet de société ci ban ci ban période diggante boobu 1918 nga xam ni euh, defaraat euh, defaraat économie koom ak dundaat ak taxawaat la kenn ku nekk taloon Serigne Touba moom ci mbaaxu yàlla gi ak ni mu nammee yàlla suñu borom léppam jëmale ko ci yàlla nit ñuy xalaat redressement économique moom muy xalaat redresser nit ñi ngir delloo leen ci yàlla ba tax mu taxaw ci 1918. tàmbali jumaa yi njaareem ji ngeen di gis muy lax Touba Diourbel Dakar jumaa yi Touba jumaa yi njaareem Masaalikul Jinaan 1918 la ko sëñ bi tàmbali bu ñu bu ba 1924 sax wala 1900 nangam waaye jamono jooju xam ne kenn ku ne yaay xalaat mooy dundalaate sa koom-koom noon noon noyyi waate jamono jooju la sëriñ bi joxe ndigal li ñu def ko kon loolu mën nañ cee jàngate lu baree baree bari vision ak gis-gisam lépp day dellu ci yàlla bokkut loo xam nag vision ba ak gis-gis lépp day dellu ci àdduna yem ci rek kon fi ñu ci toll woon duma ci dellu siwaat ndax waxtu yi duñ ko may waaye <clears throat> xam ngeen daal jumaa ji waxoon na noo egsi ba ci ñi ci doon participer di ci joxe seen addiya taalibe yëpp la nag waaye dañ doon benn list boo xam ne wér na nekk ci benn kaye ñi ci ëpp luñ joxe waxoon nañ leen ko ci émission bi wees ku ko bëgg a demal nga xooliwaat ko ñi ëpp luñ joxe ñoo ngi jamono nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ni gaalu xaalis la duylu ba mu fees yanuloo ko nit mu indi ko njaareem gaal nag ku mën a xam wala nga mën a calculer di comptable nga jéem a xam gaalu xaalis gu def dërëm ak fistine ak tànk waaye loolu moom nu mun na koo xam xam nañ daal gaalu xaalis gu fees dal ka ko yan woon ba mu eggee njaareem dero bopp yi dafa duppatiku tafu ci gaal gi ndax diis gum diis ndax gaalu xaalis la yéene sëñ ma Samba Ndiaye la ko maam Cheikh Rafal booleel mu yor ak fital ni ko dem leen njaareem muy ñukk di ñukk mu ànd ak moom ak fital gi ni ko loo gis mu jaay war a fitalal yóbbul ci sama sang ba loolu la maam Cheikh Rafal participé woon ci li ñu xam wala boog la mu jëkk a joxe gaalu xaalis foofu la ñu yemoon <clears throat> tey nag ñoo ngi ñëw ci eh, li nga xamante ni bii moo jëm ci wàllu nekk sëriñ bi njaareem dëgg dëgg dëgg fan lañ ci toll woon loolu lañ bëgg dikk incha allah rabbi mooy résidence surveillée lañ ko bàyyi woon mu nekk fa ginnaaw loolu mu def réalisation yi yëpp xaalis bi itam toll ci deux cent soixante treize millions yu tegal maanaam ay dërëmi nguur la woon boobu waaye dërëm yooyu bi ñu ko évalué mille neuf cent ngi toll ci deux cent soixante treize millions maanaam jamono yu ay quatre-vingt xaalisu dërëmi nguur yi lañ dajale woon lépp mu tabax jumaa yi njaareem deux cent soixante treize millions loolu moom lañ ko bëggoon ñu xam ko beneen bi topp mooy euh, bokk na ci nag Sëriñ Tuubaa lu ci bari ay mbiram day am sababu zahir ak baatin sababu zahir bi bu ma ci bëggee leeral taalibe yi rek ngir nu jàng yoonu murit boo demee bi muy dem ci géej gi da ngeen li wax nee na dafa bëgg sababu xaybati an allaha araada an anaalu minhu jaha nee na li tax may dem ci géej gi yàlla dafa bëgg ma am fa moom menn maqaama moo xam ni kenn du ko am wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi wa an akuna shafi'an li mi bokk na ci li tax mu dem itam mooy mu mu nekk l'unique serviteur du prophète Mohammed l'unique serviteur du prophète boo xam ni am na ñu ko liggéeyal waaye kenn du ko fekk ci ni mu ko liggéeyale foofu la unique bi jógee maanaam ñu bari liggéeyal nañ yonent bi lim ko liggéeyal kenn ko ko liggéeyal amul loolu mooy loolu tax mu ne l'unique serviteur ci wàllu ko beneen bi topp mooy mu nekk ki xam mooy ramm nation waaw chaafi an li xaw mi chaafi chifa mooy ramm maay ramm xaw mi xaw mii mooy sama ñoñ sama nation loolu moo taxoon kon dafa am sabab mais sababu zahir si nag mooy rooxale gi ñu ko rooxale ak tubaab yi jaxase ko moom hypocrisie naafiq ba tubaab yi jël ko yóbbu loolu lañ gis ci kaw mais la ko lal ca biir du loolu loolu mooy sababu zahir ak batin mooy sabab bi ñu xam ñu mën koo xam ni lii tax ñu génne ko ci ak sabab boo xam ne bu ko waxul kenn du xam lu tax loolu am kon nag njaareem itam jumaa jii mu tabax biir njaarim dafa am sababu zahir sababu zahir bi mag ñi ñoo ba ci yàgg ñooy barab bii de jumaa baax na fi ñu dem ñaan Serigne Touba diggal mu jox leen ndiggal waaye sababu baatin bi dëgg-dëgg li tax jumaa yi am foofu loon jëm si mooy lan mooy sëriñ bi bi mu nekkee Mayomba pokos bi ñu ko defal ci biir quartier bi ci camp bi camp bi nekk camp bi nekkoon Mayomba ak Touba bi camp bi camp militaire yi fa nekkoon fa lañ ko defal benn xayma bu ndaw ni ko mooy sa néeg fi ngay dëkk waaye foofu mu dëkk la muy tuuti tuuti dañuy wër xayma bi di fa saw di fa jonkan di fa def lu bon dem toilette ak lépp nga xam ne sëriñ bi du am fu mu jaar lépp rek bu ko gêné di saw ak lu ne sëriñ bi dem ne bu mënut am fu mu jullee. ndax julli day laaj fu mu am bis mu xëy moom Cheikhul Khadim xëy suba teel jugal bopp wut jaasi wala ngaska lu mën a daggaral dem ca àll ba maa yomba demal boppam ca àll ba dem dagg fa ñetti bant irwa un nadim sëñ mu Lamine Diop gi daga nee na ñetti bant yi nee nañ benn bi da koo yenu ci bopp bu tedd ba benn bi mu teg ko ci mbagg bi kepp ko benn bi mu di ko dirige loxoom muy ñetti bant ba egsi ci biir pokkus bi ci biir quartier gi fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko defal xayma bi mu jël lu mën a gas gas leeñ mu xóot a xóot maanaam pax mu xóot mu gasal ko boppam mu Cheikh Khadim gas ko ba mu xóot mu wër li nga xam moom fañ fañ doon sawag dafa def lépp mu xëcc ko ba lépp ñëw mu dugal ko ci biir pax mi soof sa nekkoon ci biir nag moom maa sare ko foofu yépp nga xam ne kon léegi foofu laab na mën naa nekk fu ñuy jullee ba mu laabee ba noppi nag ñetti bant yéen jëlee woon ci àll ba mu jël benn bant bi samp ci kanam jël bi ci des samp ci ndeyjoor jëm bi samp ci jàmm def ko jàkkaam kon loolu mooy jullikaay boo xam ne sëriñ bi moo ko defal boppam wutal ko muy jàkkaam beneen bi topp mooy kañ la ko doon def bi mu xëyee def ko ba noppi ba am jàkkaam muy ñetti bant yooyu mu julli fa tisbaar julli fa tàkkusaan bi mu fa jullee tisbaar ak tàkkusaan boobu ci jàkkaam ju bees jooju nga xam ne laab na léegi tubaab bi nga xam mooy chef bi ci quartier gi wàcc ñëw wala mu génnoon ñëw jóge ci bureau wala moo xam bi mu ñëwee gis ñetti bant yi nga xam ni sëriñ bi moo ko fi def mu ne kese sa sax lii lan la ñu ni ko marabu bi moom moo fi def bant yi nee na jullikaayam la jàkkaam la marabu bi moo ko fi def muy Serigne Touba mun leen na fi jóge chef bi ni leen na fi jóge sempi ko ngeen sànni ko te bu ngeen ko sempi sànni na ci saw ci bant yi na ci saw ndax xam nañ ko moom bu bu ci sawee dootu ko laal maanaam day day tax sobe bu ngeen sawee ci bat bu ngeen koy sànni na ngeen ci saw ndax bu bu day day fa bu ñu ko sànni sëñ bi ne ko jëliwaat mun leen sempi leen ko sànni te bu ngeen ko sànni na ngeen ci saw ba noppi. ñu sempi ko sànni saw ci bi ñu ko sempee sa saw ci ñu dem ba ginnaaw takkusaan ku ñuy wax yëlli sëy dib sénégalais dëkk ndar dafa doon liggéey foofu nekk fa secrétaire ci tubaab bi bi mu doon génn gisoon na bant yi ci suba waaye bi mu ñëwaatee ci ngoon gi gisul bant yi jàkka yi mu laaj la ne waaw li nekkoon fii anamu ñu ni ko ah dindi nañ ko chef bi moo ne nañ ko dindi yëlli si ni leen yéegaat ci kaw ci chef bi dem ci chef bi ni ko yow euh, libre nga ci li nga gëm nga di ko def waaye sëriñ bi itam li muy def nii moom woowu la ci woowuma ci man woowu ci keneen yàqalu la dara dérangé wu la dara te libre na am na sañ-sañ moom sëriñ bi ci pratique yi diineem ni mu ko bëggee kon nag léegi bant yi ngeen daaneel danga koy delloo foofu ndax moom libre na te woo woowu la woowu moom yëfi yëfi boppam na moo ko moom forcé wu ci kenn kon léegi da ngeen bant yi dañ ko fa delloo xolo boobu courage ab sénégalais la tubaab yee ko yilif muy secrétaire foofu waaye xool ko courage bi mu am foofu jàngaleen foofu sëñ bi lu bëree bëri ca may yomb la ko doon defee kon loolu war nañ cee jàngaat lu bari ci jamono yii ñu toll ci courage ak dëgg yëlli di ko ndar moo wax loolu tubaab bi bi lànk ne ko du dañ ko fa delloo ñu xuloo ca ñoom ñaar ba yëlli Seydi ko bëgg a dóor sëñ Mouhamadou Lamine Diop gay Dagana ci riwaa na dim nee na maanaam sëriñ bi wax na ni ah, li tax yëli say xeexut ak moom dóoru ko ña fa ñoo dox seen diggante waaye kon mu dóor ko foofu nag ci jamono yi yëli di xuloo ak bi ci kaw kër kër ji bari lool Cheikhul Khadim jël na xalima ga di bind nag benn ayab alxuraan boo xam ni mu jël xasida bind ko tënki ko mooy lan rabbana axrijna min hadi min hadihi alqaryati alzalimi ahluha loolu ayab rabbana axrijna min hadihi alqaryati zalimi ahluha loolu aaya la mais verset boobu Sëriñ Tuubaa da ko jël tasaare ko jël point par point def ci ak xasida xasida ga mooy lan mooy xasida radiyatu anil mawla gi ngeen di dégg te sëñ Ablaye Seck daan ko jàng radiyatu anil mawla radiyatu anil mawla lan la ci jublu nee na yàlla na nga nu génn ci dëkk bi nga xam ne ñii fi dëkk ñëpp ay tooñkat lañu ndax naqar wu mu am ci yëg gum yëg tooñ gi ko tubaab bi tooñ te jëmm yàlla rek tax mu am naqar wa mu jël ay alxuraan boobu taalif ci ak xasida muy raditu anil mawla baytu wa ca njëkk mooy raditu anil mawla taala alladi rabba fuaadi wa agnaani fa akrim bihi rabba gërëm naa yàlla suñu aji kawe mi la tàmbalee xasida gi jamono yi sëriñ bi bind xasida gi yëllee ngi ci kaw ba léegi di xuloo tubaab bi coow la ni kurru ci kaw sëriñ bi di bind di bind ba egsi ci lahaktub salaatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi bi di bind ba egsi benn bayit daal di wax ci biir xasida gi muy bind te te tënki ko ayub alxuraan ne yàlla na nga bindal maanaam julli ci bi na ko defal ak njëggal na ko defal ak mucc ak jàmm ak mbokki yonent bi ak loo aju ci moom yonent bi ay maamam ak léppam bi alihi boo ko déggee rek mooy maam yonent bi waaw bi ashaabihi mooy àndan mooy àndandooy waaye alihi foo ko déggee rek mooy maam yonent yépp nga ci biir maam yi Seydina Muhammad ñépp nee na yàlla defal leen mucc ba noppi rek defal ko àndandoo bi muy saxaaba yi daal ko nag julli gii ma lay ñaan yow yàlla nga julli ko ci yonent bi nag musal ko defal ko jàmm nag maa ngi la ñaan ci barkeb loolu nga may ma jumaa nga may ma jumaa waaw nga may ma jumaa ci julli gi may julli nang ma ci may jàkk ju gën ji jumaa ju gën jii nga xam ni moom lañ toj fii tasaare ko sama ñetti bant yii jumaa ju ko jën maa ngi lay ñaan nee na bi bi sëñ bi bind ba egsi foofu nag sunu boroom xamal ko mu dégg yàlla xamal ko ni ko sa ñetti bant yi ñu tasaare sànni ko muy sa jàkk ji maa ngi lay xamal ni danaa la may jàkka joo xam ni saa yoo delloo ci réew ma ba tubaab yi yóbbu la fañ la bëgg a dëkkal muy ay kilomètre maanaam diggante bu soriwul dara ak Tuubaa saa yu ñu la fa yóbboo ba dij la fa ba teg la fa danaa la fa demal jumaa ju fey sa jumaa jii fayee la ko ju bokkut ak ja xam ne moom jaayante woon nga ko man ba ma may la ko ba noppi jooja mooy ju Tuubaa waxuma jooja jii ma lay wax fañ lay yóbbu ba teg la fa ba yaakaar ni fa lañ lay dëkkal booba foofa dinaa la fay jumaa ju fay sa jumaa jii nga nekk loolu itam boo bëggee ma indi la ko fi ko sëriñ bi bind saaqa li gayri allahu fi yomba maa saa qalbiya wa alal jamba saaqa li fi ma yomba maa saa qalbiya wa alal jamba loolu mooy lan yàlla wommat na ci jë jëme yàlla wommat na jëme ci keneen ku dul moom daqal na ko moom Serigne Touba naqaru xol wam amoon ca bañ daaneelee jàkkaam ja naqaru xol wam amoon sunu borom daqal na ko ko ci may gu ko may jumaa ci biir njaareem sëriñ Saliou mi bokkoon ca mag ña ak mag ñi nee nañ sëñ bi bu ko daan wax ba di ko nettali buy wax bu koy wax day naan wa alal jamba nee nañ loolu li mu ci julloon mooy ñaari soore di njaareem yi nga xam ne moo xii moo tiim xubba bi nga xam ni fi la Sëriñ Tuubaa xeer saa yu ko daan wax bu wax ni saaxari xayrillaahu fii maa yomba maa saa aqal bi wa alal jamba mooy ñaari sooro di yi ngeen di seen mu tiim xubba bi loolu la ci doon jublu lii la sëriñ yàlla fay sëriñ Tuubaa te xasida gii mu nga xam ne mooy saaxali xayrillaahu baytu yi mi ngi nekk ci ay yasa min laahu baytu woo foofu la nekk kon mbokk yi yaakaar naa ni am na itam loo xam ne mën nañ ko ci dolli ndax sëñ Mouhamad Amin Diop Dagana nee na sëriñ bi mosul na nettali mukk mukk mukk lenn ci kiimaani géej gi dul dafa am ku ca bokkoon ku ko teewee mu nettaliwaat leen ko loolu nag bari na ci mbiri sëriñ bi bu ngeen xooloo bari na lu muy nett loo xam saa su nekk wala lu muy def loo xam day am seere arnabu lëgug naar ba lëgug naar ba mën neen ko fàttali bërki dem ku topp émission yi ci ginnaaw lëgg ñëwoon njaareem di seere si sëñ bi lu muy wax day indi seere soo xam ne day tege nit ñi teg seen bët lii nag tax ma indi ko mooy yëlli sëy moom yi nga xam ne moom moo taxawoon di xeex ak tubaab ba bëgg a xeex ak moom ngir naqarawum naqar ñu daan yëlli sëy bi sëriñ bi ñu bisee njaareem ba tubaab bi indi ko fi bi ñu ko indi bi ñu ñëwee Sénégal ba ñu indi ko njaareem résidence surveillée yëlli sëy dafa fekk mu jóge Gabon ñibbi si Ndar moom yëlli sëy moomee moo toog ba ci yàgg xelam dem ci sëriñ bi mu laajtee laajte ba ñu ko sëriñ bi ñibbi si ne mi ngi njaareem fu mu nekk Sénégal ñu ko mi ngi njaareem mu jógee ndar nag doon ziyaare si sëriñ bi ngir mottali couleur gëm amoon ak moom ca ndar moom yëlli sëy mu doon bëgg a xeex ak tubaab ba ca Mayomba sëñ Mouhamad sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na bi nga xamante ne bii yëlli sëy ñëw na sëriñ bi dafa fekk mu tollook bis bi jumaa ji di noppi déglu leen baax de Yelise bi mu jógee Ndar ba ñëw Njaareem dafa yëglu nuyoo ñu yëgal ko sëriñ bi mu mun leen na si xam nga kon loolu sëriñ bi doon nettali fekk na ko bi mu egsee jumaa ji mi ngi mi ngi nopp mi ngi tàmbali 1918 mi ngi jeex ba mu sasin 1342 junniy at ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci gàddaayu yonent bi tolloog le 5 août. 1924 ci la caabi jumaa ji noppi mag ñu baax ñooñu nga xam boo di tudd seen tur rek suñu maam yooyee soxal day sedd ba doo xam loo rek bu ñu lay nettali rek ni la ànd nañ di dem rek waxuma dootoo ko mën fekkee waaye da ngay imaginer ñoom bañ àndee rek di jëm ci sëñ bi di koy caabi yi booy loolu rek 1910 1924 5 août 1924 ñu àndandoo ñan lañ jën Issa Dieng sëriñ Ahmadou Ndoumbe Mbacké sëriñ Mor Absalo sëriñ Saliou Touré. sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñoom ñëpp ak ña ca des ñu àndandoo nag yor yorub ajjuma nag jëm ca Cheikhul Khadim ci biir kër ga bi ñëwee ba ci moom di ko jox caabi yi ci lañ yëgle ni yëlli sëy dafa am ku jógee ndar ku ñuy wax yëlli sëy de ziar sëriñ bi ne leen egsi bi mu egsee sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na sëriñ bi da ko ni Mouhamadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko àndal ak yëlli sëy mii ginnaaw bu mu nuyoo moom ba jàmmanteeg moom àndal ak moom nga dem ca jumaa ja nga won ko barab ba roqoo roq place li ñu ko liggéey lépp sëñ Mouhamadou Lamine Diop ànd ak yëlli sëy dem ba ci jumaa ja toogagul sax dañu ñoon rek mu ne ko àndal ak moom mu dem ci jumaa jaari bi xool plan xanaat bi xool lépp xool sooroor yi xool lépp yéemu ci lool ndax rafet gu bu rafet àndaat ak sëñ Mouhamadou Lamine Diop daga nag ñëw ci sëñ bi foofu nag yaram war na fee daw lool waaw bi mu egsee ci bi xelam nekkut ci loola saaqa li gayrillahu fii maa yomba xelam nekkut ci waaye sëriñ bi ko yëlli ndax yaa ngi fàttaliku yow mi doon xeex ak tubaab bi bëgg koo dóor ndax naqaru xool ba nga amoon ci sama jumaa jën daana la nag jumaa joojee nu mu sama ñetti nu mu def ak jumaa ji yëli dafa yuuxu sama ñetti bant yooyee di jàkk nu mu def ak jii mag ñi ko fekkee ne nañ yëli dafa yuuxu ci kaw daanu kon lii mooy Cheikhul Khadim ñetti bantam yooyee ñu filoon daaneel ko sànni ko mooy jumaa ji ci njaareem tey Ahmadu mooy jumaa ji ci njaareem tey kon ñu jàppaat Serigne Touba dañ jàppaat Serigne Touba ngir nag lu ñëw ci. ndax sëñ bi julli na fa wala fa la daan jullee farata wala déet loolu mag ñépp juboo nañ ci ni sëñ bi mosu faa julli jullik farata waxantu ba laag nag di fa julli àjjuma mosu faa julli julli juróom waxantu ba laag àjjuma ñaari julli la fa mas julli ci biir jumaay njaaram ji mooy julli ko ay day nii tabaski ak korite loolu mag ñépp juboo nañ ci ci histoire yoon murit waaw kon loolu nag lan moo tax ñu di fa julli léegi maam Thierno Ibrahima Fati bi fi sëriñ bi jógee moo dajale mag ñi fekk sëñ Mbàkke bu sa nekk fa mu ni ko sëñ Mbàkke ah, dama leen laaj ba xam tabax bii ci pénc bi tabax bii ci pénc bi tabax bi jàkka la wala jumaa la mu ni ko ah kay jumaa la de war nañ cee julli ajjuma mu ni ko ana lu tax sëriñ bi julliwu ci ajjuma sëñ Mbàkke Buso ca ca ca ca xam-xam ba ni ko sëriñ bi musuta xalaat ni dina fanaan njaareem wala mu yendu fi ndax résidence surveillée la nekk donc ci loxol tubaab bi la nekk nuit et jour bu nekk mën nañ ko jógal yóbbu ko feneen minute bu nekk te ajjuma day am ku mu war mooy koo xam ni dëkk ba nga nekk wér na la di fi toog ñeenti fan yoo xam ne doo génn ginnaaw nag Serigne Touba moom dafa nekk ci loxo tubaab yi te tubaab yi ñoom ci seen leen neex dox le même bu fi dee yàggit bu leen neexee ñu ko tey jógal léegi yóbbu ko feneen mbir ci seen loxo la nekk kon loolu moo tax ajjuma ko fi war waaye nag jumaa de dañ cee war a julli ci la maam Thierno Ibrahima tàmbalee di jiite foofu di ñuy julli sa jumaa ja hmm, di ko def di ko def ba Cheikh Moustapha ñëw ñu di ko continuer ba tey jii kon loolu mooy li nga xam ni. suñ Mbàkke bu soon ni ko koo xam ne fa nga nekk xamu ndax da nga fay yenn wala da nga fa fanaan loolu moo tax rek mu demee noonu mu des nag fi may jeexale waxtaan wi ci tënk tey maanaam tomb tey bi ñu nekk ajjuma jële la ñuy ñëwaat ci li topp insha mooy lan mooy yelli sëy euh, ku jarañee la ndax soxnaam suñuy wax xawaa u xawaa u nekkoon ak moom ca Gabon ca ba soxna si dafa bëggoon sëriñ bi moom itam sëriñ Tuubaa képp ku bëgg yàlla rek bëgg ko ak koo mën a doon soxna si yëlli sëy waxuma yëlli soxnaam da koo toppoon lool fonk sëriñ bi bëgg ko lool ngir jëm yàlla ba tax na matt dafa daan jafe moom moo daan dem di jëndi matt moom xawaaw di ko jox sëriñ bi matt xëy na bu seddee muy taal wala dara ba noppi yemu ca jigéen ñi xam nga ni jigéen moom liñ naan bari nañuy pexe te am na ci ñoo xam bu ñu nekkee sa ginnaaw lu ne ko def ak seeni pexe soxna soosu da cee boole woon lettre yi sëñ bi daan soxla di ko yóbbu soxna si daan na ko yóbbu li lettre mu sëñ bi di ko yónnee lettre sëriñ bi daan na jaar ci loxol soxna si ak lettre yu jëm di jaar ci loxo mu di ko lijjantil courrier bi muy fexe ba di jot ak di ko dugaleel lettre soxna soosu nag dafa am bis sëriñ bi yónnee ci moom ni leen laajal leen ma soxna soosu ana lu tax muy def lii muy def sama digg ak moom maanaam topp toog gi mu koy topp toog sonn gi muy sonn ci moom soxna xawaa u ko laajal leen ma ko lu mu bëgg ak lu tax muy def lii mu ni ko mën daal da koo sopp ngir jëmm yàlla rek waaye nag li mu bëgg moom xawaa ci sëriñ bi nee na daa bëgg mu ñaanal ko ndax nee na mag laa maa ngi bëgg a nekk mag lool te aw ma doom damaa bëgg nga ñaanal ma ma am doom faatu rek dem su ma te su ma dem àjjana ma am doom te su faatu dem àjjana mag ñi nee nañ ci wér soxna soosu ba ba ba ba ñu waxee loolu sëñ mu dugg ci noppam weer lañ ca teg weer lañ ca teg soxna sa war na lor tollu diggante at moom mais ba at ma daatan jeex soxna si am na doom waaye bi mu amee doom rek daa faatu fi sensé daa am doom rek daa di faatu moom soxna Awa moom soxna si yenn si ci mag ñi nga xam ne xam nañ sëñ bi nag ak it ni mbir yi demee mu xaw a kiimaane nee nañ soxna si dafa teqaliwul ñaan gi dañ ko dama bëgg am doom faatu dem àjjana bu ko doon dama bëgg am doom nag bu noppi nekk fi yàgg fi lool su waaye tëkk tëkk takkale gi mu takkale damaa bëgg am doom faat dem na te ñaanu sëriñ bi bu dalee bul xam lu mu doon nee na loolu nee mag ñi nee nañ ñoom ñi xam sëriñ bi nee nañ loola moo tax mu am doom rek daal faatu ndax àjjana mënu si faa dem di woo te sëriñ bi ñaanal na ko day dugg àjjana te àjjana bala faa dem faatu kenn du Cheikhul Khadim waaye moo tax ñu ne sëriñ bi ñi ko xam dëgg bu ñu koy ñaan ngir mu ñaanal lañ dañuy teqale mbir yi may doom faatu dem àjjana mu daal di am doom daal di faatu ndax mënut a dem àjjana te faatuwul muy soxna Hawa moom kon nag bokk yi loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey ci nekkub siriñ bi njaareem li ci des nag xanaa mooy eh, taxaw tuuti doxali fi diggante sooganam ñëw nag ci taxaw seetlu bi nga xam ni ñu bari di téléphoné di wax di laaj man leen xëy na da ngeen a bàyyiwul xel de. waaye man yaakaar naa ñiy wax ñëpp man weer ngi maa ngi wax ci situation bii di avertir di alerte weer maa ngi artu ñi may topp ñëpp laa wax weer maa ngi wax weer ñeenti émission yu jàll yëpp am na ci boo xam ne spécial dama ko jagleel loolu ci wasalaamu ala man itabal huda lii lépp naa leen attention ba bi ci mujj barki démb man leen dossier bu ñu masaan teg tànk rek ngir ragal mu taalum réew biyee ko ëpp loolu bi ma koy wax boobu li mbir yi tàmbaleekul yéen ñëpp bu ngeen demee ci youtube fekku ci artu nañu alerte nañu wax nañu def nañu lépp léegi nag incha allah rabbi euh, kon nekkub sëriñ bi njaare bi ngi noonu euh, mën ngeen koo topp tey bu 9h jot tey jii ci 9 ji ngeen jéggal ma moom ngeen di seetaan nii ci 9 dinañ ko rediffuser waaye incha allah rabbi talaata nag lañuy ñuy toogaat ak yéen ci jataayu Murid Saadix الحمد لله الكريم سلمنا على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني